Seex Mustafa santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa Seex fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa tëddal nelaw yaa Mustafa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa te dal nang nelaw yaa mustawa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa wala yaara yu may yaay borom xaas ni mustawa muhammadu abdalahi ax nii bi mustawa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 te bul faale ko wuy see ka farje ki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw ne yaa wat ña daawoote ña daawaate ngay woo nee nañu waaw waaw nda Cheikh Bamba yaay donoom ku koy sikki sa kaareere Cheikh Amdi Moustapha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 la Seex Bamba noon waa réew mi yàlla ma wooteloo ku dib dof na toog ne xel wa dew Moustapha defaloon na ko murid yëpp tax nag euh, ñuy fàttaliku bis bu mag boobu ñu dégg nag euh, denkaane bu am solo boobu yi nga xam ni Seex mu Moustapha al Karim defoon na ko fii nga xam ne mooy ci Daaru Xuddoos ngir ko fanaan ci guddi gaag yu mel noonu tax nag euh, bëccëg gi itam ñëpp teel a xam loolu yi ñenn ñi di ko gàttandoo wàcc alxuraanul karim togg bernde joxe ak euh, liggéey bu am solo boobu nga xam te ne moom am tax ñu ñëw fii nga xam te mooy kër sëñ Aliou Mbacke fekk si fi nag xalifaam bi nga xam ne mooy sëñ Ahmadou Mbacke moom sëñ Aliou ñu koy ñaanal yàlla na ko saa borom yàlla sàmm taxaw ko ba liggéey bu rëy bi nga xam te si nii waajuram wu sell wi naalo na ko mu yóbbu ko fu kawe njortam te ànd kook jullit yëpp ak taalib yëpp tax nag ñu ñëw màggal gu njëkk gi nga xamante si nii moom lañ ko fekk si fii ci tey ñaan nag bu nekk màggalam gu mujj ñu jël kàddu yu njëkk fii ci jataay bi euh, sëñ Modou ginnaaw buñ la jaajëfalee Euh, fekk si na la ci kanam sëñ bi ana yu njëkk yi ngeen di yëkkati jëme ko ci liggéey bu sell bi nga xam ni da ngeen ko ànd ak waa juróom ba fas yéene ci ànd ak moom auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw buñ santee suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam sant seexul xaddim bu baax di nuyu ak ziar Cheikh Mahamadou Muntaxa di ko ñaanal suñu borom gën ko yàgg loolu tam ànd ko gwer waaye di ziar bu baax jëriñu pàkk bi di nekk di Daaru Xuddoos di sëriñ Ahmadu Muxtaar koy ñaan baax suñu borom gën koo dëgëral yàggal ko fi lool ba lépp loo xam ne Cheikh Mamadou Sa amoon na ko yéen a liggéeyal Cheikhul Khadim ba magam yi naa lañ ko mu àggale ko te ànd ko mbooleem njaboot gépp ci barke Cheikh Mamadou Moustapha noonu lañ ñaanalee jëriñu Serigne Aliou Mbacke di Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Aliou du ko ñaanal baax suñu borom gën fa yàggal loolu te ànd ko wér waaye du nuyu baax Serigne Khadim Mbacke mi nga xam ne moom mooy jëriñu kër gi ak Serigne Salihou Mbacke ak Cheikh Abdoulahan Mbacke ñu ngi nuyu baax Cheikh Sa mi nga xam moom moo toog ci ginnaaw moom Cheikh Mamadou Sa moom Serigne Ahmadou Mbacke moom Serigne Aliou li nga xam ne waajuram moom moo toogoon ci kër gii téye woon liggéey sëriñ Ahmadu Mbàkke Ndóodi ba suñu borom def ci coobareem mu wuy ji boromam bàyyi ñoog doom ju baax ji di ab taam di Seex Muhammadu Mustafaa ñu koy ñaanal baax suñu borom gën koo dëgëral sàmm ko te aar ko lépp loo xam ne waajuram rek amoon na ko yéene liggéey sëriñ Ahmadu Mbàkke Ndóodi ci taalibe yi mu àggale ko ba naal ay naal boppam ci barke Seexul Xadiim mu mel ne eh, at mu jot dañ koy def muy màggalu Xisroonu Muharram ñu jote woon ndigal ci Seex Muhammadu Mustafaa waxoon ne bis bii de bu ñëwatee képp koo xam ne yaakaar nga Seexul Xadim na nga ñëw fanaan ci dëkk bi muy bis nga xam ci la jële woon Seexul Xadim ci njaareem indi ko fii ci dëkkam bii mu gënoon mu gënoon bëgg dëkk bi nga xam ne suñu borom da koo joxoon te suñu borom natt woon ko mu bañoon fee dëkk bis bi nga xam ne ci la ci la ci la dëddoo woon nag Seex Mouhamadou Moustapha defoon yitteem jëpp mu indi ko ci dëkk bi ndax sëriñ bi radiyallahu anhu dafa waxoon ne dafa ñaanoon suñu borom mu defal ko bis bi gën ci ay bisam mooy bis mu jàkkaarloo ak moom mooy allahuma ijaam xayra ayaami na nga def bis yi gën ci may bis mooy bis may jàkkaarloo ak yow bis boobu nag mooy guddi gi nga xam ci lañ war a jublu muy guddi xasiroona muharam xam ngeen ne màggal gi ni ko Cheikh Mahamadou Sa daan defee mooy buñ xëyee danañ jàng alxuraan ak xasida su bëccëgee ñu bernel nit ñi su guddee tamit ñu fanaane ko am parce que màggal gi màggalu guddi la du màggalu bëccëg ndax guddi gi moom la ñuy te guddi googu Cheikh Mahamadou Sa waxoon képp koo xam fanaan nga ci ni ci war a fanaane muy jàng xasida ak ak na ci sëriñ bamba tuubal nan la ñëw nan di jaayikum te salaaw dootunu dellu wel nan ci Mustafa ndax ganaar ak nenam yaag siqiya cuuja kulluhum borom gamba baa moom lépp naaw tal nu Mustafa Cheikh Mustafa mi maay mujjisaatam fardil lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi musa bi mustafa lu jin njaaga bambay njaag te mooy njiin fa mustafa ku fay nag jikkoom war naa liggéeyal si mustafa cheikh mustafa géeju ngëneel waaju ak si duy ku mar bay xondooj yaa tey ma wal fa mustafa ndoxom maa ngi wër tuuba batum aynu rahmatin waxay nuuri daa dem leen dëkkee ki sayqi mustafa ma nga yeesalaa tuuba bi tajdiidi diinihi yërëm ndaw ña magal mag ña moo doon mustafa di sayloo jigéen ña denculoo góor ña kulluhum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 te fële ñu nekk ndax euh, kii nga xam ne moom la yàlla booleel mu nekk xalifa sëriñ Mahmoudane Khary Lo sëriñ Mahmoudane Khary Lo ku ne xam na ne moom mooy ñetteelu xalifa Cheikh Modou Moussa te wax dëgg yàlla bi mu toogee mati woon ko loolu nag euh, yàlla dogal ñun ñii fi nekk nekk euh, magi taalibe bi nga xam ne ñoo ne ci kër gi maanaam sëñ bi it wax dëgg yàlla doyloo ñu ci lu bare bare kon euh, ñu ngi ci màggal gi di ko màggal di ñaan suñu borom lépp lu ñu fiy ñaan ak yiw bu ñu fi am suñu borom boole ko jullit yëpp ak taaliba yëpp yéen ñi nga xam ne yéen ñëwit ak seen euh, jumtuwaay suñu borom sàmm leen ci turu sëriñ bi suñu borom dimbali leen suñu borom taxawu leen suñu borom euh, yokk seen xéewal ba ni ngeen fi ñëwee ren ngeen fi mën a ñëw at yu nekk te fekk ñu fi fekk fi sëriñ bi di sàkku ci ñëpp ñu ñaanal sëriñ bi suñu borom yàggal yàggal ko wéral ko te yokk taxawaayam ndax kat ñun suñu xel dal na ci moom ndax euh, moom moo fi nekkal sëriñ Makhuna Xarlo waaye ñun de wax dëgg yàlla ñun ñi nga xam ne dañoo féete ci magu taalibe yi amuñu dara loo xam ne ñu koy rëccu ci ànd bi nga xam ne ñu koy ànd ak moom ndax euh, mu ngi ñuy tette mu ngi ñuy wan yoon mu ngi ñuy wan ni moom euh, doomu sëriñ Makhuna Xarlo nekk xalifaam te nekk ci li nga xam ne sëriñ Makhuna Xarlo loolu la bëggoon ak mu Moussa ak sëriñ Touba kon ñu ngi ci sant bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom képp ku fi teew suñu borom defal la tawfeex képp ku fi taw yàlla defal la yiw ku fi indi jàngoro suñu borom faj ko te suñu borom may ñu gudd ba ñu fekk ay màggali màggal wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh amedaay fi sairin bada batinin inayatuhu qabla alwilayati mustawa kilay mbàkke waa kokeeg lugak di kër ndeyam ña doon kaañi kankaan ba koleeraam fa mustawa kuloo wasra boo dex gaa ngi fengat dootu daay sëriñ bi di barul juudi nuur leen fa Mustafa wala yastawil baraani asbun sarabo wa milxun ujaajun bul xiyaas nit wala yastawil ahma kalaamu ilaahina fa anta basirun yow Cheikh Amdi Moustapha Cheikh Moustapha santal dayab cant yaa fi gën amul ku lay werante ka ngaayoo ci Moustapha santal dayab cant yaa fi gën amul ku lay werante ka ngaayoo ci Moustapha tëddal nang nelaw yaa Moustapha ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiirooti luum nan ci Moustapha tëddal nang nelaw yaa Moustapha ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiirooti luum nan ci Moustapha wala yaara yu may yaay borom xaas ni mustawa muhammadu abdalahi ax nii bi mustawa ña daa xiiru ak ñay mat seen gëñ ya foq nañ di sargal mbokk yi teew ci bis bii yëpp ak fu waay mën a ak ñi amoon yéene teew ci ñëpp ci yàlla def mënu ñëw teew yeneen yàlla sun yaakaar jiñ ci am ba koy def mu boole ñu ko ñun ñëpp euh, di sant yàlla bu baax di julli ci yonentam bi sall bi sallallahu alayhi wa di santaat borom Tuubaa Sawul Xadim waaye di ñaanal sëriñ taxa yàlla sun borom yàggalaat ko fi lool ca dolli ko ndam ak i sutura ba mu eggali yéeneem ak i mébétam yépp di ñaanal it sëriñ Ahmadou Maxtaar mi nga xam ne tey moo jiitee Daaru Xuddus ca euh, mu woote bis bi nga xam ne képp ku koy taxawal ci ndigalam nga ko taxawale ci ginnaawam nga ko taxawale ginnaaw bi mu ci jotee ndigalul xalifa général des mourides sëriñ Mountakha waaye di ndokkeel njabatu Seexul Xadim gépp ak taalibe yëpp bis bi nag de bisub lislaam de bisub Sénégal bisub lislaam la tax borom moo toll ne fu list fu baatub laa ilaaha illallah rek Muhammadu Rasulullah taxaw di sax ay mbiram a nga fa waaye nag bisu Sénégal la dax ci réew mii la fekk baax euh, lim amit fi la ko amee mu jóge fii di tasaaroo ba daj kapp àdduna ñu muy bis boo xam ne ki ko njëkk wuutu ci kaw suuf muy Cheikh Mouhamadou mustafaa moo ko woote woon moo ko njëkk woote booba ak léegi it amul benn at muñ ko musta def muñ ko mas a jëlal at mu ñëw 1936 ba léegi at mu ñëw def nañ màggal gi egg si ci sëñ Ahmadou Mokhtar mi yàlla ko fi yàlla yàggal moom may ko wér ak njabootu sëñ Bamba gépp ah, muy màggal goo xam ne nag xam naa fàttali rek lay doon waaye murid yëpp xam xam nañ ko jullit senegal yëpp it xam nañ ko màggal la goo xam ne mooy bis bi boroom tubaa ñibbisee Touba moom la Cheikh Moustapha woote ngir euh, manoon cee dajale murid yi ndax yit ngir mën a gën a mën a saytu it murid yi ndax mën a gën a mën a taxawal ak wéyal liggéeyu sëriñ bi ci ndigal yi mu ko bàyyee waaye nag ngir it kenn ku ne mën a delluwaat ci yàlla ca xam ne ginnaaw kii la yàlla dara jaale lu tool nii bàyyi fii lu tool nii di yaakaar yaakaari tey ak ëllëg ci murit yépp moom moo mën a wane ginnaaw ñi di ko ñaanal sunu mas gi yëpp waxi noppi muy bis boo xam ne kenn ku ne war naa delluwaat ci sunu borom xam ne bis danga dellu ci sunu borom danga nga wéet ak sunu borom waaye nag moom ni mu wuuteeg nit ñi ci lépp ni la mbiram mii wuuteeg mbirum ñëpp ndax bis bi daf koo ñaanoon wax ne yàlla na yàlla def bisam bii muy dellu ci moom dellusi ci sunu boroom doon bis bi. gën ci moom bi ku gënal loola it tax na ñun dañoo jàpp ne sëriñ bi gisutun ko fi saayir waaye du ko fi jóg bis bu mu tànn nag ngir dajeeg suñ boroom ñun bés boobu jàpp nañu mooy bis bi gën ci bis yi loole nag da ci lay ko Cheikh Moussa wooye woote woon ba léegi ñu di ko taxawal waaye di ko taxawal ci ay anam yoo mu gën a di ko woote ci anam ya mu gën a muy ci jaamu yàlla ak wéetal ko ci tuub ci jàng alxuraan ak xasiida di ñaanal sëriñ bi waaye di ñaanal askan wépp di ñaanal jul yëpp di ñaanal islam. daa jabar ña daa xaatim ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi mustawa sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ko wuy see far jekki leen mbokki diwaan ñu ngi leen di siyaare den leen jot li siyaare nu yób sëriñ bi akuk cantam fii mooy kër sëriñ Saalihu Mbakke ambassadeur doom Cheikh Amadou Moustapha ah ki ko fi toogal tey nag mooy sëriñ Cheikh Mbakke Siab ah muy doon ci yi nga xamante nii sëti Cheikh Amadou Moustapha yi nga xamante nii moom moo liggéeyoon liggéey bu rëy bi nga xamante nii ci Serigne Touba ba tax bis bi ñun ñëpp ñu di ko màggal mooy lam ko ca santoon lépp def na ko euh, la nga xamante ne moom la ci sababu woon te dénkoon ko Cheikh Modou Moustapha lépp def na ko te xat damut te booba def ko jafe na lool waaye mu ànd ko fit ànd ko dëgër ànd ko xel ba def ko nam ko war a defee loolu moo waral bis bi nga xamante nii moom la ñuy màggal muy bis bi sëriñ bi accès fii dëkkaaleeg boromam. ah fii nag yéen a ngi fi ci kër goo xamante nii ci biir Daaru Xuddoos la nekk di kër goo xamante nii kër euh, taalibe la goo xamante nii taalibe yëpp fi la ñuy ñëw a ah, di fi siyaare si di ñëw di fi jëli si lu baax muy kër Sëriñ Saliou ambassadeur donc ki ko fi toogal it di sëriñ bu baax boo xante ni bu yaatu ginnaaw la bu mën a taxaw aw nit di liggéey it liggéey bi nga xamante ni moom la ko fi maamam bàyyi woon donc mooy jaamu yàlla ak toog ak noppi loolu daal la roy ca turandoo bay Serigne Cheikh Mbacke moom it la jëfee fii mu toog nii kii mooy Serigne Cheikh Mbacke yàlla na ko fi yàlla yàggal te wér yàggal ci ginnaam ci barke Serigne Cheikh su fekkoon da wiiw na yaa wat ña daawoote ña daawaate Moustapha ñi ngay woo nee nañu waaw waaw nda Cheikh Bamba yaay donoom ku koy sikki sa kaareere Cheikh Amdi Moustapha ci waaw mbaa ci waawaaw mbaa ci woowoo nga tollu tey ku ñëw lay siyaar baax ci bis bu tedd bii di sukk ci sa kanam di jaxaat sunu bopp di digluwaat say ndigal saa su nekk rek di la yàlla sunu borom subhanahu wa taala yàggal sab taxawaay nga yàgga sagal kër gi yàgge jiite ndam li ndax ndam li am na ba noppi ndax jamono ji dafa nekk jamono joo xam ne am na loo xam ne yàlla sunu borom subhanahu wa taala da koy seet rek mu def mu jagleel ko doomu aadama ndax kenn mënu koo jënd muy ak baax te baax googu yàlla def na ko ci yow ñu ngi naan yàlla yàlla sunu borom subhanahu wa taala ñu yàgg sukk sa kanam yàgg laa jébbal liggéeyal sëriñ tubaab yi te doy nga ñu ci sëkk te am nañ yàqin ci nekk rek lépp luñ ci liggéey rek yàlla dina ko nangu Sëriñ Tuubaa dina ko nangu ngir sa jëmm ji loolu am nañ ci yàqiin moo tax nga yàgg fi sunu ndam la nga yàgg fi sunu sag la ndax xam nañ la bu baax a baax xam nañ ni nga mel xam nañ ni la yàlla def xam nañ ni nga nekk ci yoonu Sëriñ Tuubaa bi ni la yàlla def nag dañ ci sant bu baax a baax a baax te yéene la ko lool nag loolu yàlla lañ koy seereel ndax ndimbal nga ci ñun yërmande nga ci ñun ndax jamono ji doy na waar lool ndax li nit ñi gën a bëgg nga xam ne muy àdduna moo ñuy tax di kër kër yi saa su nekk képp ku sukk ci sa kaw ci sa kanam rek lu mu indaale ci àdduna ci xolam rek danga koy raxas ba mu set wicc ba nga xam bi fi jógee de doo day dootu ko ñor barki démb rek maa ngi ciy waxtaan nag benn waay maan ma man saal yi ma daan toog yëpp toogatuma fa mel ni mu sëñ Cheikh Waalo rek mooy ki nga xam ne fu mu nekk mën na maa dagg paas fekk ko fa ndax lépp loo yenu ci àdduna boo eggee da ko fa bàyyi boo boo fa jógee da nga xam ne yàlla rek ak Sëriñ Tuubaa mooy dara kon loolu ndam la loo xam ne ndamu kër gi la ndamu yoon wi la te nga yàgg fi mooy sunu ndimbal ndax it nag nit ki di ñàkk aw ñàkkam saa foo ko digalee mu def ko saa foo ko teree mu bàyyi te li mu koy def da koy ànd ak xol bu set ndax xam na ki mu koy defal muy sa jëmm ji toog maanaam damay wax ni yow moom ak fay nga fay nga ak fay nga goo xam ne Serigne Touba moo ko fay Cheikh Ibrahima Afsat radiyallahu taala anhu ndax ku nekk xam na taxawaayam ci liggéeyam Serigne Touba bañ na ko ba léppam addee Serigne Touba la ko def kon yaakaar naa ñi nga xam ne ñooy liggéeyal Serigne Touba di ko jaaree ci yow na ñoo am yàqin ci ne Serigne Touba moom mi mi ngi leen di fay loolu moom moom ñëpp ñëpp seer nañ ko ndax jë sa jëmm ju sedd ju sell ji ni nga mel sagal kër gi sagal yoon wi sagal taalibe yi tax nga kenn ñi benn taalibe ñi wuta de def njuumte ndax bu ñu ko tuddee tudd la rek ah di di lépp lu mu doon def ci ñaawteef dina di dina di dina dina dina teggewaat tànkam di ko dale ci njaboot gi sëñ Ibra gi yëpp képp koo ci gis sa bopp nga koy def man mi nga xam ne maa ci gën a nekk xale ne door dugg ci àdduna sax nga xam ne ci falaa am na loo xam su ma ko naroon def sax su ma sama xel dina ci yow ma arriéraat kon loolu ndimbal nga ci ndimbal nga doon ci ñoom kër gi kër la goo xam ne yàlla sunu borom subhanahu wa taala daf ko sagal ci yoonu murid muy kër sëñ ibrahima muy sëñ ndax borom sëñ ibrahima afsatu radiyallahu taala anhu ab liggéeyam dafa màgg ab liggéeyam dafa sell ci sëñ Tuubaa daf ko nangu ba nag mu jël la teg la ci kër gi nga sàmmal ko ko ni mu ko bëggee te yaakaar naa tey jii bu jëllu si woon jërëjëf rek la lay wax ndax loolu njaboot gi seere nañ ko taalibe yi seere nañ ko wax nga seereel ko nii nee na wóor na ko ni ah lii la dénk ni ko taxawe da nga ko cee moom mii sax soññiwaale ñëpp loolu gis na ko gis na sab taxawaay gis naa ne itam sëriñ bi la ñor ndax gis naa ni foo toll yaa ngi kër kër yi yaa ngi yëngu ci taalibe yi ngir lu jëmale këram gii kanam te këram gi mooy sa kër xam na ni li fi sëñ wi da bàyyi woon wala mag de jiitu la ci waaye li fi sëñ bi da bàyyi woon ak li mu daale ak li mu namoon lépp yaa ngi koy jëmbat ci mbooloo mi nee na yaa ngi soññi mbooloo mi yaa ngi soññi ku sëñ Ibra jur moom mii sax yaa ngi koy soññi nee na loolu mu ngi la ci sant di la ci gërëm ndax loolu loolu rek sa sëñ bi bëggoon sëñ Ibra day li doon xalaatam mooy nii ngeen mel rek mbooloo mu àndandoo di jékkatee ndoo di dóorandoo te sëñ Tuubaa tax loolu day man wax na ma ko ba tey dama cee tuñantoog moom ba tey loolu nag yéen a ngi ci cant gi ngay sant sëñ Cheikh ak di ko sant mbooloo mii loolu day ci yow mii rek la de ñu ngi lay ñaanal ba lii nga xam ne nii mooy nekk ci sa xel mii ak sa xalaat yii nii nga koy waxee nit ñi ñu déggee ko ni te jàppe ko ndax buñ ko defee de nun ñëpp danañ xettali ko ndax lu xettali mbooloo mi lu leen jariñ lu leen jëmale kanam ci nga nekk muy fii ak feneen loolu sëñ bii moom xam na ko te man mii itam nekk ak moom sës moom xam naa ko xam naa ni itam lii nga def moo nekk ci njabootu sëñ Ibra gépp waaye sëñ Ibra de daa am lu mu waxoon dafa waxoon ni sëñ Moodu Musaa wax na ko ni li mag ñi am danga ko am loolu man moo ma waxal boppam sëñ Moodu Musaa nee na ko li mag ñi am danga ko am loolee nag mooy lii ngeen di def loolu mooy lii ngeen di def taxaw ci ci ci ci cëram ba mu ràññeeku te teg teg ko fi ngeen ko war a teg topp sëñ si amee di ko déglu loolu day xolam jëpp ci sedd te sëñ Aliou yow ñëpp a ngi lay gërëm ndax lii ngay def dangay ngay soññee te soññee bii de sëñ bi moom la moom la mujj a wax ci ñu defal ko ko kon nag mbooloo mi yéen ñi nga xam ne nii yéen a ngi déglu sëñ Aliou wala yéen ñi nga xam ne nii ay taalibe ngeen na ngeen xam ni mbir maa ngi nii yoon waa ngi nii ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal gone yi ak jigéen ñi ñoom ñëpp yàlla may leen gudd fan ak wér gi yaram bañ mën a liggéey sëñ amiin